sëriñ abdu xaadir mbàkke sëriñ abdu xaadir mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1914 ci dëkk bii di ndaam daaru xalimul xabiir di dëkkub sëriñ ndaam abdurahmaan lo li tax mu ganee àdduna ci dëkk boobu di ndaam daaru xalimul xabiir di dëkkub sëriñ ndaam abdurahmaan lo mi ngi ganee àdduna nag bisub ajjuma ñetti fan ci weer wi di weeru tamxarit ci atum ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 20 novembre 1914 ci ndaam daaru xalimul xabiir di doo doomu soxna Aminata Kandi Bousso ak kii di Serigne Touba Seexul Xaddim booba waajuram wu góor wi di Serigne Touba Seexul Xaddim mi ngi ci résidence surveillée ci dëkk boobu di njaareem ci kër googu mu nekkoon di buqatul mu baraka ñu gën koo xam ci kër gu mag Serigne Touba Seexul Xaddim woolu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko xamal ne kii di soxna Aminata Kandi bu de am na gan na nga dem tuddal ma ko Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke ñu ngi ko wutal lii di aw tur fukki fan ci weer wi di weeru tam sëriñ tuuba seexul xaddim keroog ma ngay wax rakkam ja maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di ko xamal ne man ngaa diibal saw yoon ndax ni ngay demee ba ni ngay dikkee képp koo xam ne ni dajeel ngaak moom ji jéggal nañ ko ay bakkaaram ndax kat doomu aminata kandi bu sa jooju feeñ noonee ko sëriñ tuuba seexul xaddim waxee woon rakkam ja maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru noonu la ko defee joge njaareem nag ñëw ndaam daaru xalimul xabiir ci ëttub sëriñ ndaam Aminata Kandi Bousso jii di Cheikh Abdou Khadir Mbacke tudde ko xaritu ku baax ke Serigne Touba Cheikhul Khadim di Abdou Khadir Jeylaani Cheikh Abdou Khadir mbakke na am na ñaar ñu mbokkal kii di soxna Aminata Kandi Bousso ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna munatu Mbacke bintu Cheikhul Khadim muy soxna Maymunatu Mbacke Kubra ak keneen ku ñuy wax soxna xadi Mbacke bintu Cheikhul Khadim ak soxna Aminata Kandi Bousso ak moom Cheikh Abdou Khadir Mbacke kon ñaar la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy moom cheikh abdou xaadir mbàkke ku baax ke sëriñ tuba seexul xadim di waajuram moo ko laaj lu ci njaareem ginnaaw bu mu ko dalalee lii di alxuraanul karim ba noppi nag fobaat na jëmm jooju di cheikh abdou xaadir mbàkke indiwaat ko ndaam daaru xalimul xabir ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag la jànge alxuraanul karim ba ni fi sëriñ tuba bàyyi ko bi fi sëriñ tuba seexul xadim bàyyi ko nag la sëriñ ndaam abdourahmaan loo jël sëriñ abdou xaadir mbàkke yébbal ko nijaayam sëriñ mbàkke buso di ko wax ne daal dama bëgg bëgg na nga jël Abdou mi mu nekk nag sëb cër ci njaboot gi sëriñ Mbàkke Buso nag jël sëriñ Abdou Khadre Mbàkke yébbal ko nag sëriñ Birahim Njaay ci loxoy sëriñ Birahim Njaay nag la seex Abdou Khadre Mbàkke nag bindee alxuraanul nag ba noppi la ko nijaayam sëriñ Mbàkke Buso jël jox ko doomam ja nag sëriñ Asan Buso ngir mu jàngal ko xam-xam ginnaaw doomam sëriñ Asan Buso nijaayam sëriñ Mbàkke Buso jëlaatoon na jarbaatam boobu nag di seex Abdou Khadre Mbàkke yóbbu ko njaareem ci loxoy sëriñ Muhammadu Dem nag bu njaareem ginnaaw sëriñ Muhammadu Dem njaareem cheikh abdou xaadir mbàkke nag yàggu fa daa delsiwaat gede nag ci kër nijaayam nag sëriñ mbàkke busoo sëriñ asan buso nag wéyal nag am njàngam ginnaaw bi nag la ko nijaayam sëriñ mbàkke busoo jébbal nag magam nag cheikh mamadul moustapha mbàkke mu topp nag ci ginnaaw magam nag cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko xoole nag seen waajur wa xaadim rasuul cheikh mamadul moustapha mbàkke gede la ko dëeloon muy fii ñu tuddee jàkkay cheikh abdou xaadir fi nga xam ne nii ëttub nijaayam mu nekk fay liggéey lu mu am it magam ji cheikh mamadul moustapha mbàkke sa moustapha joxoon na ko ndigal mu dem sanc nag dëkk bi nga xam ne ni moom ñu tuddee baxdaat mu nekkoon na ku ragal yàlla ku fonk kon magam yi ku bëggoon waajuram wi di xaadim rasool ku fonkoon ay mbokki boppam di kër nijaayam di mbusoobe ba tax na sax lu ëpp ci waa Gede kër googu lañu yaakaar Cheikh Abdou Khader Mbacke nekk ku kiimaane ku yéeme ndax nuru gu mu nuru waajuram wu tedd waa di xaadim rasool kon bokkoon na ci doomu Sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim yu gënoon a nuru seen waajur wa xaadim rasool moo xam ci doxaliin ci waxiin ak lii di jëmm mu nekk nag ci dëkk yooyu mu sanc moom Cheikh Abdou Khader Mbacke di liggéey Moustapha Mbàkke moom lay xoole xaadim rasul ndax miinul bu baaxa a baax waajuroom wu tedd wa bi fi seen waajur wa sëriñ tubaa seexul xaddiim di bàyyikoo kii di cheikh abdou xaadir mbàkke ci fukki at ak ñett dong la toll léppam magam ji la di cheikh mamadul moustapha mbàkke ak lii di kër nijaayam ci lool nag la sax ba na fi waajuram wa magam ja cheikh mamadul moustapha mbàkke bàyyi ko ci fukki fan ak ñeent ci mois de juillet ci atu 1945 mu jëlaat léppam nag jox ñaareelu xalifa waajuram di cheikh mamadul faadal mbàkke jébbal ko boppam nag def ko mag ak lii di sëriñ ak royukaay ba ni fi cheikh mamadul faadal mbàkke bàyyi ko ci juróom benn fan ci mois de août ci atu 1968 cheikh abdul axat mbàkke ñëw nekk ñetteelu xalifa xaadim rasool mu di ko xoole magam ya ma mamadul faadal mu cheikh mamadul moustapha mbàkke ak seen waajur wa xaadim rasool dafetim ni ko murid yépp dafetim ñëw jaayanteeg magam ja cheikh abdul axat mbàkke ku ràññeeku ci ginnaaw cheikh abdul axat mbàkke ba cheikh abdul axat mbàkke ñaare daana def yenn ci ay seede di ko misaale cheikh abdou xaadir mbàkke ndax xam na ne cheikh abdou xaadir mbàkke mii kat waajuram wa ak tànkam ya dong nag la jël moo mi ngi ci cheikh abdou xaadir mbàkke mi nangoo julli gi ak fonk lii di lislaam gi itam ba tey mi ngi ci jëmm ji di cheikh abdou xaadir mbàkke ba tax na cheikh abdou lahad mbàkke ku ko nawoon la lu baree bari su ko masaa wax daana tudd turu cheikh abdou xaadir mbàkke ngir def ca seede ñoom ñaar ñu mel ni mburoog suukar ci seenu xilaafa cheikh abdou mbàkke xam ne cheikh abdou mbàkke mii de rakkam la te itam léppam fob na jox ko ko cheikh abdou xam ne cheikh abdou lahad mbàkke mi itam magam la mu fob ko ko Abdoulahat Mbacke di ko xoolee comme xaadim rasul cheikh Abdou Khadr Mbacke itam di xoole cheikh Abdoulahat Mbacke comme xaadim rasul ba tax na lu baree baree baree bare ànd nañ ko def ci xilaaf ak cheikh Abdoul Ahad Mbacke cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag jël kii di cheikh Abdou Khadr Mbacke taf ko ci moom ba mu sës rëkkitim ci moom moo ko sax def lii di imaamu imaami wala moo ko def lii di imaam ndax kii di cheikh Mamadul Fadal Mbacke mi ngi génn àdduna bisub talaata juróom benn fan ci weer wi di weeru ut ci atum 1968 ba set àllarba di juróom-ñaari fan ci weer wii di weeru ut ci atum 1968 ñu fob xilaafa gi nag teg ko ci loxo yi jàmbaar ju cheikh abdul ahad mbàkke mu wuutu nag mu cheikh dul faadal mbakke kon talaata juróom-benn fan ci weeru ut la kii di mu cheikh dul faadal mbàkke génn adduna te ñetteelu fanu xilaaf ak cheikh abdul ahad mbàkke cheikh abdul xaadir mbàkke cheikh abdul ahad mbàkke def na ko imaamu tuuba mu jiite nag lii di julli yi sëriñ abdul xaadir mbàkke mi ngi njëkk jiite lii di jumaay ajjuma fukki fan ak ñeent ci weer wi di rakkaat ji gàmm ci atum 1388 ci gàddaay gi dëppook muy vendredi 9 août 1968 ba le 13 mai 1990 sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke imaamu imaam yi moo nekk lii di ilimaanu jumaay Tuuba kon mi ngi jiite lii di jumaay Tuuba ci diirum ñaar fukki at ak ñaar ak fukki semaine ak juróom ñu xayma lii di ajjuma yi mu toll ci junniy ajjuma ak téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ñeent junni ajjuma ak téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la cheikh abdou xaadir mbàkke nekk imaamu jumaay tuuba lu tolloog fukki ajjuma ak benn rekk la ci jiitewul kon ajjuma yi nga xam ne ni cheikh abdou xaadir mbàkke moo nekk ci kanamu sàppe bi wax allahu akbar ba wax asalaamu aleykum ci julli gi muy kàbbar ba ni mu sëlmale mi ngi toll ci junniy ajjuma ak téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett junniy ajjuma ak téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñetti ajjuma cheikh abdou xaadir mbàkke moo wax allahu akbar liqaam moo wax asalaamu aleykum sëlmal lii di fukki ajjuma ak benn yi nga xam ne ni wuute na ko lii di jiima imaamu jumaay tuuba fukk yi mooy diiru bi bim demee màkka ci ndigalul magam ja cheikh abdul axat mbàkke muy bi muy waaja dem màkka bi mu demee màkk ak bi mu ñibbisee fukki ajjuma la yu mu wuute ku ñuy wax sëriñ busa imaam moo nekkoon imaam bi moo wuutu woon cheikh abdu xaadir mbàkke ci jumaa ji sëriñ busa imaam mii nag doomu sëriñ aafee busa la borom barab bi bennub ajjuma bi mooy bi cheikh abdu xaadir mbàkke tëddee lii di feebar bi ko génne lii di àdduna 1990 ku ñuy wax sëriñ njaaña busoo doomu sëriñ mbàkke busoo moo nekkoon imaam bi ci bis booba ajjuma jooju moo tombe woon nag fukki fan ak benn ci mois de mai ci atum 1990 muy vendredi 11 mai 1990 benn ajjuma boobu rek la cheikh abdou xaadir mbàkke tëdd ci feebar bi moom la wuute jumaay tuuba ca dimanche ja la génn lii di àdduna kon ajjuma jooju mooy fukkeelu ajjuma ak benn bi mu wuute jumaay tuuba ji fukk yi mooy bi mu demee màkkatal mukarrama benn bi mooy bi mu tëddee feebar ajug màkk ga nag ci mois de novembre la ñu ngi ñibbisi ci mois de décembre 1976 kii di cheikh abdou xaadir mbàkke nekk na imaamu jumaay tuubaa ci ndigalul magam cheikh abdul ahad mbàkke bisub ajjuma juróom-ñeenti fan ci mois de août ci atum 1968 ba bisub dimanche fukki fan ak ñett ci mois de mai ci atum 1990 ajjuma jëm njëkk jiite lii di jumaay tuubaa juróom-ñeenti fan la woon ci mois de août ci atum 1968 ajjuma ju mujj jiite lii di jumaay Touba moo nekkoon ajjuma 4 mais 1990 ajjuma 4 mai 1990 moom Cheikh Abdou Khadr Mbacke moo nekk itam ñaareelu xalifa général des Mourides bu nekk imaamu jumaay Touba ndax bi muy génn àdduna moo nekk xalifa général des Mourides waaye moo nekk itam imaamu jumaay Touba kon mu nekk imaam jumaay tuuba ci ndigalul magam Cheikh Abdou Lahad Mbacke Cheikh Abdou Lahad Mbacke nag yóbbu woon na màkkatal mu kii di cheikh abdul xaadir mbàkke ci atum 1976 aj gi wax naa leen ci mois de novembre la woon ci 1976 kerek ba muy dem délégation bu yaatu la cheikh abdul ahad mbàkke boole kii di cheikh abdul xaadir mbàkke ngir ñu gunge ko xam ne doomu xaadim rasool mooy aji ca délégation ba nag matoon nañ fukki nit ak benn ñoom ñépp itam ci ndigalul xalifa général des mourides lañu demee màkkatal mukarrama ci at mooma ngir ñu ànd ak cheikh abdul xaadir mbàkke imaamu imaam yi cheikh ñii la boole woon ca délégation ba ci 1976 ñu gunge Cheikh Abdou Khadre Mbacké ca aj ga ñu ràññee ci ku ñuy wax cheikh mohamadou lamin baara mbàkke ibnu cheikh mamadul faadal mbàkke ibnu xaadim rasul keroog sa cheikh abdoulahat mbàkke mi ngi xamal kii di cheikh mohamadou lamin baara mbàkke di ko wax ne soo demee nga toppatoo sa waajur wi te aar ko kon mënoon nañoo wax ne lii di garde corps cheikh abdou xaadir mbàkke juróom benneelu xalifa xaadim rasul la woon di cheikh mohamadou lamin baara mbàkke falilu ñaareelu nit ku bokkoon délégation ba mooy ñuy wax sëriñ daam atta mbàkke moom cheikh ibrahima mbàkke ibnu xaadimu ñetteelu doomu aadama bu bokkoon ca délégation ba mooy ku ñuy wax sëriñ cheikh say mbàkke ibnu sëriñ bu mbàkke ibnu xaadimu rasul ñeenteelu nit ku bokkoon ca aj ga mooy ku ñuy wax sëriñ moodu abib mbàkke ibnu sëriñ abdullahi mbàkke boroom dër bi ibnu xaadimu rasul nekkoon ca aj ga mooy ku ñuy wax sëriñ daam jatara taalibeb cheikh abdu xaadir mbàkke la juróom benneelu nit ku bokkoon keroog ca aj ga mooy ku ñuy wax sëriñ xamdi mbàkke doomu soxna may munatu mbàkke la mii magu cheikh abdu xaadir mbàkke bintu xaadimu rasul juróom ñaareelu nit ku bokkoon keroog ca aj ga mooy ku ñuy wax sëriñ muhammadu baaxeer buso doomu sëriñ mbàkke buso la sëriñ muhammadu baaxeer mii sax nekkoon na ñetteelu xalifa sëriñ mbàkke bu mooy waajuru cheikh ibrahima buso mi nekkoon xalifa sëriñ mbàkke Bousso juróom-ñetteelu doomu aadama bu bokkoon ca lii di délégation ba mooy ku ñuy wax sëriñ Assane Bousso doomu sëriñ Mbàkke Bousso la sëriñ Assane Bousso mi sax bokk na ci ñuy jàngal kii di Cheikh Abdou Khader Mbàkke ci Gédé Bousso googu moom sax foofu la des ca Makkatal Mukarrama keroog ba ñuy dem ca bokkoon waaye bi ñuy ñibbisi ma nga fa kon doomu sëriñ Mbàkke Bousso bii di sëriñ Assane Bousso moo nekkoon juróom-ñetteelu nit ku bokkoon ca délégation ba délégation bi fukki nit ak benn lañ woon fukki nit ñi kenn moom moo fa des di moom moomu di sëriñ asan buso mooy waajuru sëriñ fàllu buso asan juróom-ñeenteelu doomu aadama bu bokkoon ci lii di aj ga keroog ci atum 1976 mooy ku ñuy wax sëriñ maxtaar buso doomu sëriñ mbàkke buso la nekkoon na sax juróomeelu xalifa sëriñ mbàkke buso fukkeelu nit ki bokkoon ca aj ga keroog bi ñuy dem lii di màkkatal mukarrama mooy ku ñuy wax sëriñ maamour sekk taalibeb cheikh abdou xaadir mbàkke la ak kii di cheikh abdou xaadir mbàkke muy fukki nit ak benn Lahad Mbàkke yóbbu Màkka ci atum 1976 googu kon délégation bi ñoo ànd ak kii di Cheikh Abdou mbàkke dem màkkatal mukarrama ziyaareel seex abdulaxat mbàkke ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam defaale seen ponki lislaam ndax lii di aj màkka ci ponki lislaam yi la bokk mu luy nekkaat ci ginnaaw cheikh abdulaxat mbàkke ginnaaw bu ñu ñibbisee ci mois de décembre ci atum 1976 cheikh abdulaxat mbàkke itam nekk ku fonk kii di cheikh abdou xaadir mbàkke waaye nekk itam fonk kii di cheikh abdulaxat ba ñoom ñaar munoo woon a xàmmee sax kan moo nekk xalifa général des mourides ndax maase gu ñu maasee ak bokk menn at muñ ganee àdduna waaye cheikh Abdou Lahad Mbacke nag mooy magu kii di cheikh Abdou Khader Mbacke te cheikh Abdou Khader Mbacke xam na ko loolu itam taxoon na dëkkub cheikh Abdou Khader bi ñu tudde Touba Bustaan kii di cheikh Abdou Lahad Mbacke moo ko gorloo sëtam ba di Serigne Mbacke soxna loo borom Taïf ak Bayla ci atum 1981 ngir cheikh Abdou Khader Mbacke nag am ñaareelu dëkkam dëkk boobu sax cheikh Abdou Khader Mbacke ku ko fonkoon la moom Touba Bustaan def gàtt ba doomam ji sax di sëriñ moodu abdu xaadir mbàkke foofu sax la génne àdduna ndax fa la ko dëeloon kii di cheikh abdul ahad mbàkke yokkoon na fi lii di jumaay tuubaa ji ci atum 1988 ba nag ca màggaluk tuubaa ga ca safar ga ci lañ immigré lii di jumaay tuubaa ji jumaa ji sax keroog biñ koy immigré cheikh abdul ahad mbàkke mi ngi wax murid yi ci appeluk màggaluk 88 googu di leen xamal ne jumaa ji sax eggul dese na lii di ab kocc koccal waaye màggaluk tuubaa gu dajeeg 18 safar tombe mu nekkub ajjuma moo yombul te safe lokal occasion màggaluk Touba gu ren gi tombeeg bisub ajjuma kon nag nañ ci inaugurale waale lii di jumaay Touba ji keroog ci ajjuma joojee moo tombe woon ak ajjuma fukki fan ak juróom ñett ci weer wi di weeru safar ci atu 1409 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 30 septembre 1988 keroog bi ñuy inauguré jumaay Touba ji Cheikh Abdou Khadr moo nekkoon imaamu Touba moo jiite itam lii di ajjumay keroog ji ci kanamu mbooleem murit yi nga xam ne nii fekk si woon nañu inauguration jumaay Touba jooju muy ñaareelu inauguration jumaay Touba ci ajjuma jooju tombe woon nag mu nekk inauguration jumaay Touba ji laata Cheikh Abdou Khadir Mbacke di jiite lii di jumaay tuubaa ji ci ñaari rakk yooyu amaloon na itam lii di xutbab arab xutbab arab ba Cheikh Abdou Khadir Mbacke mooy ki ko def ñu teewlu xutbab ajjuma jooju أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد أنبياء وصلى الله عليه وسلم على سيدي شهاب نصران الجزائري متواسرين دائما عرضيه لقاءه مع بعض خلايا الناس وشكم بتقوى الله وشكم بتقوى الله بشكل بتقواه فارتاف من كفاه ما شئت من المعاصي فارقى ما سام إليه ولكن من طاعته في طاعته يرضاه فلا أكون اتباع الهوى أفضل من اتباع هواه أعمق بالتأكيد سيدته تحب أن يخرج من منتهاه ألم أن يا عباد الله إن من سكى الله سكره ما تقدموا بأنفسكم من خير تجدوه عند الله أفيا سلامكم هذا إن سلام قل خيره وكثرت بلاه وسخرت من أبي طلب الدنيا وخاف يقال بماء الموت ولا حول ولا قوة إلا بالله مفاد وعيب كان تباه وعاتباه وخل تهيلته ومن تختار في الحراء وتختار في الجهال ولكن والله يملك يملك بنسية الفهم ومن يموت من اليد ومن الشقاية من العين وخسر القلب والحس وطول الأمل إفلاطا من لا يشق يده بالليل ويتوب في النهار وشق يده بالنهار ويتوب في الليل حتى تطلع الشمس من مغربها يخلو الله لكم ولجميع في آمين الحمد لله فجأ في جار جلاله فأتراه العيون وتفرد في سواد كماله فأتعالى بالقوس الزمين أهل سبحانه وتعالى نعمد بالجسم بالحامدين وأسوى بسبيله تقوى به العيون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم ما كان خالدا يكون أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله يا له من نبي تصرف به الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على آله سيدنا ساعة مساء الزين من كلاسين yaa ayyuhal lazina aamanuu ammaa ba'du yaa ayyuhan naas naasu bi-hablillaahi allazii antum alayhaa aakifuun rahmaani rahiim fekk la ji mooy tu'minuuna mu'riduun wa tazunnuuna annakum fid-dunyaa mukhalladuun am tad'uuna annakum laa tamuutuuna wa laa tub'asuun hiya al-anbiyaa'u wa hiya al-awliyaa'u wa hiya al-mursaluun ayyaam ma'duuda fa-in abaa kullu qadamin fa'alaa llaahi taaj wallaahi saa'ilun mutaqatta'uun thumma saa'iqatul mawt hal lakum min-shaafi'iin fa-ilayhi turja'uun لا إله لا كثير وخير لا إله فأن هلاك بينكم وبينها فلقينا موتاكم به خيركم من طالهم حسن عملي وصبركم من طالهم إحساء عملي يغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين آمين ginnaaw xutbab arab boobu ngeen doon dégg noddkat bi nodd na تحية على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله loolu ngeen doon dégg moo nekkoon li lislaam gi kon nag léegi ñu teewlu jullik ajjuma gi cheikh abdou xaadir mbàkke jiite ñaari ràkke yi ñu teewlu ko alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم يسبحوا لله ما في السماوات وما في الارض من قدوس الحكيم ولجمع الحمدين والحمدين يقبل من الحكيم ويعلم الكتاب ويكون سيطان من قبله ولا يهديه فغير مما يلحق به عن سلسلته تجزي الماء غير مساد تجزي ما يكون تعملون لا يلبسنا من الاسلام من تحياتك وعافا عنه فيكون لكم مسلم تعلمون ان شاء قطيع بالصلاه هم تسلسل قوم فضل الله واشكر الله كثيرا لعلكم تفلحون اذا تجادل ابنهم فاغنيا تلك خير وما عند الله خير من الله يا فلا غير العاشقين الله الله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 ليس لهم طعام إلا من ضعين لا يكون ولا يخرج من الجوع يجوع جنود الله وتلك الأعراف في الجنة حالية لا تكون لها ولا فيها لا يعني من جارية لا صوم وقنوت ولا صوم وقنوت ولا يقنوت بس وصابي بسوته ولا يسوي إلا بك يقول قد من السماء كيف ومحط الجبال كيف نسبت من الأرض كيف سكحت مسكر ما أنت مسكر لست عليم فوتك إلا من تولى وكفر ما أسمع الله وصاب وكفر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر السلام kon julli googu mooy jullik ajjuma di ñaareelu inauguration jumaay Touba ci atum 1409 ci gàddaay gi nekkoonub ajjuma tombe woon nag muy màggaluk Touba du 18 safar tombe woon nag muy 30 septembre ci atum 1988 ci teewaayu mbooleem doomu seexul xaddiim yi nga xam ne nii ñi ngi fi woon ndax boobakat cheikh Abdul Ahad Mbàkke mi ngi fi woon cheikh Abdou Xaadir mi ngi fi woon Serigne Touba cheikh Soin bu Mbàkke mi ngi fi woon Serigne Touba cheikh Salihu Mbàkke mi ngi fi woon cheikh Murtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasul mi ngi fi woon ak caat atum xaadim rasul ma di soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xadim màggal googu nag ba mu delsee ca déwén sa kii di sëriñ abdu xaadir mbàkke nag moo nekk xalifa général des mourides ndax laataa màggal gay delsi kii di cheikh abdul ahad mbàkke génn na lii di àdduna ci at moomu di 1989 cheikh abdu xaadir mbàkke ñëw nekk ñeenteelu xalifa xaadim rasul wuutu nag mbooleem magam yi nga xam ne nii ñoo toogoon ci jal bi rakkam yi fi des di ko xoole seen mag ya ak seen waajur wa xaadim rasul mbooleem mbooleem taalibe yi itam jaayanteeg moom cheikh abdul xaadir mbàkke màggalug 18 safar googu mu ngi tombee woon ak bisub àllarba fukki fan ak juróom ñett ci weer wii di weeru safar ci atu 1410 ci gàddaay gi mu dëppoo woon ak mercredi 20 septembre 19 1929 muy màggaluk cheikh abdou xaadir mbàkke bu njëkk màggal na ci lii di xilaaf ak sëriñ tuuba seexul xaddim nekk xalifa général des mourides màggal googu itam la mujjee màggal ci xilaafaam ndax màggal gi laataa muy delsi ca déwén sa génn na lii di àdduna màggal googu ginnaaw bu mu defee appel bi ñu organiser màggal gi ba màggal gi noppi bañ xëyee ca bisub alximis ba di lii di cérémonie officielle ba kii di cheikh abdou xaadir mbàkke ma nga fa woon ginnaaw délégation yoon ngir ñëw teewal ko ci màggal googu ngir joxe itam ndokeelam ak cofeelam ci bisub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sargalaale mboolem murit yi nga xam ne ni ci réewum Sénégal lañ bootu te moom kat mu nekk ca bopp réew ma délégation bi mu yabaloon nag ginnaaw bu ñu saafoon teg seex Abdou Khadre Mbacke wax ko lii di yóbbante président de la république ci bëgg gum bëgg ñu ñaanal réew mi Cheikh Abdou Khadre Mbacke jàppale président de la république Abdou Diouf ca yónnent boobu ginnaaw bu ko Mbàkke nag jëlaatoon na kàddu gi ngir tontu itam ci mbooleem murit yi ndax booba kat moom la ñuy xoole xaadim rasul kon ginnaaw bu Cheikh Abdou Khader Mbàkke nuyoo ministre bi di ko wax ne itam mu jot lil ko nuyoo président de la république ki nga xam ne ni moom mooy Abdou Diouf ma ngi koy wax ne itam nag ñaan googu président de la république di sàkku ci man danaa ko def sama sas te du booy incha allah ma ngi ci doon yokkaat nag keroog ca cérémonie officielle bi di wax nag mbooleem taalibe yi nga xam ne ni moom moo leen jiite jamono ji ci ëttub Sëriñ Tubaa Seexul ñu gën a góor góorlu nag ca farlu ci jaamu suñu boroom te def ko nag ci sunna ndax sunna kat mooy yoon wi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam yoroon nañ mooy tund ko lii di ak tooñ ndax kat ku yaakaar seexul xaddiim tooñ waru la tey wax murid yi nag ñu sax nag ci lii ak jub cheikh abdou xaadir mbàkke nag mu ngay wéy di wax murid yi nañu respecté nag lii di état bi ndax itam kat ñoom la suñu boroom dogal ñu jiite leen ci wàllu nguur muy wax murid yi nag nañ jéem a maslaa ak lii di gi xam nii nag nguur gi digal na leen ko ñu xool ko xam ne daal daanub suñ boroom nekku ci nañ ko def ndax maslaa rek la bu fekkee ne nag loola nag daanub suñ boroom ña nga ca ah nañ ca maandu ndax kat ëllëg suñ boroom mooy ate ñu teewlu kàdduy Cheikh Abdou Khadir Mbacke ci cérémonie officielle u màggalu 1989 tem nekk màggalam gu njëkk gu mu jiite lii di mbooleem murid yi nekk itam màggalam gu mujj itam gu mu jiite lii di murid yi sëriñ bi nee na mi ngi leen mi ngi lay sant bu baax di la gërëm itam. ñu ngi itam président. yeneen ñu ngi nuyu président di ko sant. di ko sant di ko gërëm. di ko nga xam ne yéen ñi ñu koy waxal laal lañ yow ak ñi nga xam na ñoom nga àndal te jiite leen ñaan yooyu nga wax ni itam dañ ci bëgg ñu def ko ñaan ko gi itam danañ ko fas wax na ñaan googu nga xam ne sàkku nga ko ci turu réew mi ak borom réew mi def na ko aw sasam woo xam ne fas ni yéene du booy incha allah incha allah <laughs> mu ne ni ki taalibe itam. li ma leen daal dénk moom laay dénk mu leen daal dénk. démb ak barki démb moom la leen di dénk ba tey. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. moo di ñu sax ci jaamu yàlla. ci sunna. ci sunna. sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. day wattandiku ak tooñ. day wattandiku ak tooñ. te sax ci jub. te sax ci ak jub. te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk. ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi ñi te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk mbiri àdduna ji ñi seen kilifa itam. waaw ngeen dimbalante ñoom. ngeen defal mu daara ba ca gën ba gën a rafet. waaw te lépp loo xam ne ñun soxla nañu. soxla soxla nañ ko. Mm. te suñ suñ diine ci réew ko. ñun ak ñi ànd ci am nee na itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga ne suñ biiree térewu ko ngeen ànd ñoom yàlla na ñu ko yàlla fayal doomu xaadim rasul boobu di ñeenteelu xalifaam di cheikh abdul xaadir mbàkke newoon naa leen ku yërëmoon lii di jullit yi la ku fonkoon ak taalibi la ku bëggoonug mbokk la ku amoon cofeel ci doomu aadama yi la ba tax na daana def guddik samedi gune mu ñaanal mbooleem jullit yi daana def itam ajjuma ju jot bu xëyee itam wër mbooleem barabu kilifa yi ñaanal leen ba tax sax bind na téere boo xam ne nii ngir jàppandib jullit bi la ba bu ëllëgee bu dajeeg suñu boroom du rus téere boobu mi ngi tudd xirsun muslimiina sëñ Abdu Xaadir Mbàkke ma ngi ci bind mbooleem nu jullit bi mën a def ba bu ñaanee suñ boroom nangu nu mën a def ba mucc ci yenn yi lore kon ku yërëmoon lii di jullit yi la rawatinam taalibéy waajuróom wi di sëriñ tuba seexul xaddiim téere boobu ku ko laajte gis ko muy xirsul muslimiina ku ragaloon ak bokk bokkaale moom cheikh abdou xaadir mbàkke ba tax na nit daana feebar ñëw ci moom sax di ko sàkku si ñaan am na nooy waxee ak moom ca sa feebar boobee la dal duutu la tontu ndax day ragal bokkaale ga lu ëpp itam ci kilifa yoonu murid yi ci xilaaf ak cheikh dul faadal mbàkke ba ci xilaaf ak cheikh abdul axat mbàkke bi ñu génnee àdduna moom mi moo leen taxawu moom cheikh abdou xaadir mbàkke ñu bari itam daanañ taamu buñ génnee àdduna mu taxawu leen ndax kat waxoon nañ ne ku doo lakk cheikh abdu xaadir mbàkke ku ragaloon suñu boroom la te ku daa xam doomu aadama lu man la ak lu mënul tim ndax am na benn bis mu jógee ci dëkk boobu di baxdaad doon wut si tuubaa benn boroomu bitig bu mu romb am lu mu fa doon wuta boroom bitig ba jël ca marchandise ma jox ko ko lii di addiya cheikh abdu xaadir mbàkke da ko ko delloo di ko wax ne gis gi nga ma gis rek moo tax nga jox ma addiye ji waaye addiye ji ñorul ndax loolu itim xam gum xam taalibe yi mooy li ko waral am na benn bis itim mu doon déglu lii di rajo Sénégal doon déglu ay tàgge bisub keroog lii di ay bët réem dafa jeex maanaam suba gi rajo bi waxul am na ku ñu doon wax sëriñ Afe Njaay ma nga fa woon moo dem ubbi bitigam jël lii di ay bët réem ñëw sarge rajob Cheikh Abdou xadr Mbacke Cheikh Abdou Khadir Mbacke mi ngi ko doon laaj Afe lii loo ci jublu mu di ko wax ne addiye laa ko def fa Cheikh Abdou Khadir ne ko Afe xam naa loo man ak loo mënu te xam naa la bu baax a baax a baax sa addiye ji ñurul am na xaar gi receveur bi ticket yi mu doon dagg keroog daggulul kii du cheikh abdou xaadir mbàkke ticket cheikh abdou xaadir mbàkke laaj na ko loo ci jublu mu di ko wax ne addee lañ ko defa cheikh abdou xaadir di ko xamal ne jox ma sama ticket comme ni nga joxe ñépp ticket te itim nag na nga fexe ba bu ëllëgee bu ko def kaneen ndax li nga yor moomoo ko ma ngay wax keroog receveur bi di ko wax ne comme yow dangay ngay fayeeku weer te dañ lay liggéeyloo kese lii nga yor moomoo ko te ak wor wala ak triangle lay nuru nag joxe loowuñ la ko woon te kooko joxu xaalis maanaam may loowuñ la ko woon kon ku daa sóoraale jullit yi la ndax te yooyu kat lu mat a seetlu la ngalawaay nañu roy ci jiili lii ma leen wax nag su ngeen demee ci marsiya bi ko bàyyi Lamine Jóob defal taalibe la ci kër googu ku dund kii di cheikh Abdou Khader Mbacke defal na ko marsiya bu yaatu ginnaaw bu fi cheikh Abdou Khader Mbacke bàyyi ko ku dem ca marsiya ba da nga fa fekk xisse yi ma leen wax mu gën leen wóor bàyyi Lamine yow itam yàlla na la yàlla fay te guddal saw fan cheikh Abdou Khader Mbacke ku fonkoon lii di julli la ba tax na bu masaa sëlmal dana wëlbatiku ba xool ñan sàppe si su noppee nag bu ëllëgee ku ko mën di kalaami ci ñooñu nga xam ne mës naa julli ñu nekk ci ginnaawam lam cay wax daal mooy moonte de kuy jaamu suñu boroom la ndax maanu tëgg ndax gis na santaaneb suñu boroom bi koo ko def ko mu nekkoon itam ku bëggoon njaboot fonk lii di doom moom Cheikh Abdou Khadir Mbacke bëgg loolu itam ay rakkam ak nii di ay magam ba tax na itam ay magam ak lii di ay rakkam itam tudde nañ ko sax lii di ay doom ñu ràññee ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ibnu Khadim na ko doom ndax Mouhamadul Fadal Mbàkke mi ngi fi woon yal na yàlla yokk ay leeram te tas ñu ci barkem jilim cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke kii di cheikh Abdoul Ahad Mbàkke tudde na ko doom Serigne Touba Cheikh Salihu Mbàkke tudde na ko lii di doom Serigne Sohaybu Mbàkke tudde na ko lii di doom Serigne Modou Moustapha Mbàkke Falilu di Serigne Modou bu sa jange tim tudde na ko lii di doom Serigne Mor Soxna bu maam Mor Jaara tim tudde na ko lii di doom Serigne Modou Mamoun Mbàkke bu maam cheikh Anta Mbàkke tim tudde na ko lii di doom ndax ki toog toogaayu Serigne Xaadir Mbàkke lañ ko tuddee sëriñ Muhammadu Njaay Bànji tudde na ko lii di doom sëriñ Moodu Maamun Ñang tudde na ko lii di doom ñu takku ci njabootu sëriñ Mbàkke Buso ñi tudde nañ ko lii di doom ndax sëriñ Abdu Baaxeer Buso tudde na ko lii di doom sëriñ Xasan Buso mi mu àndaloon ca aj ga ci atu 1976 itam tudde na ko lii di doom sëriñ Maxtaar Buso tudde na ko lii di doom sëriñ Njaaña Buso mi ko mujjee wuutu ci jullik ajjuma itam tudde na ko lii di doom ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi toppoon kii di Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke Touba Seexul Xaddim te defoon ko lii di royukaay ndax jikkoy Seex Abdu Xaadir Mbàkke kat lu leen neexoon la ndax saa buñ ko masaa gis xam ne xaadima nga ne boole ko nag di yar ak a jàngale turandoo yiñ ko tuddee itam muy jiili yi mu fas yéene na def li nekk ci moom mu def ko ca ñoom ba tax na itam foo giseem Seex Abdu Xaadir xam ne nurul na lii di turandoo loolu la sax nekk nag ci ginnaaw magam ji Seex Abdu Lahad ba ni fi Seex Abdu Lahad Mbàkke génne lii di àdduna bisub altine fukki fan ak juróom ñeent ci abdul lahat mbàkke génn lii di àdduna sëriñ abdu xaadir mbàkke ñëw nag nekk ñeenteelu xalifa xaadim rasul ci bisub altine fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de juin ci atum 1989 ba dimanche fukki fan ak ñett ci mois de mai ci atum 1990 cheikh abdu xaadir mbàkke toog na lii di xalifab sëriñ tubaa seexul xaadim ci fukki weer ak benn yu teg ñaari fan ci fukki weer ak benn yu teg ñaari fan lii di màggalub tuubaa itam di safar gi màggal na ko benn yoon ci xilaafaam ndax cheikh abdul ahad mbàkke ci weeru tabaski ci atum 1989 la génn àdduna kon ñetti weer ginnaaw bi kii di cheikh abdou xaadir mbàkke organisé na lii di màggalu tuuba ci atum 1990 ci diiru lu nekk xalifa général des mourides moo nekk imaamu jumaay tuuba sëriñ abdou xaadir mbàkke mi ngi génn àdduna bisub dibeer fukki fan ak juróom ñaar ci weer wii di weeru korite ci atum 1410 ci gàddaay gi dibeer fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru korité ci atum 1410 ci gàddaay gi dëppoo muy dimanche 13 mai 1990 dimanche 13 mai 1990 ay atam tolloon ci juróom ñaar fukki at ak juróom benn doomu xaadim rasool ba ak kii di soxna Aminata Bousso ba dem xalifa général des mourides dem moom cheikh Abdou Khadir Mbacke Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke mi ko wuutu ci xilaafa gi nekk juróomeelu xalifa xaadim rasool woolu rakkam ja Serigne Sohibou Mbacke ibnu xaadim rasool moo ko taxawu moo ko jullee mujje ñu jébbal kii di cheikh abdou xaadir mbàkke ci penku jumaa ji cheikh abdou xaadir mbàkke nag ay xalifaam nii la tëdde sëriñ muudu abdou xaadir mbàkke mim tuddee ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam moo ko wuutu ci këru boppam ci le 13 mai 1990 ba le 3 août 2003 le 3 août 2003 ba nëgëni nag sëriñ cheikh ahmadou mbàkke mooy ki fi nekk toog toog ay cheikh abdou xaadir mbàkke ñu koy ñaanal bu baax a baax suñ boroom guddal aw fanam moog lii di ay rakkam suñ boroom tax taxawu leen sàmm leen te aar leen ak mbooleem doomi cheikh abdou xaadir mbàkke yi kii di cheikh abdou xaadir mbàkke nag am na ay tur yu bari yu ñuy wooye lii di ay turandoom ñu ràññee ci ñenn ñu ñuy wax abdou xaadir am na ñu ñuy wax jiili am na ñu ñuy wax borom mbax baxdaad am na ñu ñuy wooye kadeer moom cheikh abdou xaadir mbàkke am na bis buñ koy fàttaliku muy ñetti fan ci weeru tam xarit ndax bis boobu kat la ganee woon lii di àdduna ci ndaam daaru xalimul xabiir te sëriñ tuuba seexul xaddim waxoon rakkam ca maam cerno ibrahima faati di ko wax ne jéggal saw ngay demee ba ni ngay dikkee képp koo xam ne ni daje nga moom jéggal nañ ko ay bàkkaaram bis boobu nag la njaboot gi jàpp di ci fàttaliku seen waajur wa seen yaakaar ja kii di cheikh abdou xaadir mbàkke bis bi nag ci atum 1991 jàpp 1992 lañ ko taxawal ci teewaayu lii di jiili yi ndax kat ñoom ñoo demoon ci njabootuk kii di cheikh abdou xaadir mbàkke rawatina sëriñ moodu abdou xaadir mbàkke mi njëkkoon a wuutu cheikh abdou xaadir mbàkke di ko wax ne seen turandoo da lañ bëgg taxawu di ko ci ñaanal ngir kat lépp loo xam ni tey ji ñi ngi leen di tudd li leen tudd ci yoonu murita jëmm jooju moom moo ko waral lépp lu ñu am itam kooko rek lañ ko bëgg a faye jaadu na ñu am bis boo xam ne nii dañ koy sant seen turandoo wa muy ki leen boole ci xadimu rasuul di cheikh abdou xaadir mbàkke sëriñ moodu abdou xaadir mbàkke nanguloot na ko turandooy cheikh abdou xaadir mbàkke yi muy li ñu dee ci lii départuk màggaluk sëriñ abdou xaadir mbàkke turandoo yi ñooy ki ko amaloon di ji lii ji nañ ko nag li leen njaboot gi jàpp jàppale muy doomu cheikh abdou xaadir mbàkke yi ba li nga xam ne nii moom mooy màggal gi toll fii mu toll ci njàppandalu doomu cheikh abdou xaadir bii di sëriñ moodu abdou xaadir mbàkke ak kii di sëriñ cheikh ak ay rakkam kon jiili yi yàlla na leen yàlla fay ci bis biñ wutal seen turandoo wa cheikh abdou xaadir mbàkke màggal googu di màggaluk sëriñ abdou xaadir mbàkke ginnaaw bu sëriñ cheikh toogee ñaareelu xalifa cheikh abdou xaadir mbakke ci atum 2003 boole nañ ci nag taawam ba sëriñ moodu mbàkke abdou xaadir ngir di bi ñeenteelu xalifa xaadim rasul ba turandoo sëriñ abdu xaadir jeylaani ba rakku soxna maymunatu mbàkke bintu seexul xaddim ba càmmiñul soxna xadi mbàkke ba na ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram te ñu ci barkeem bi jaay